situation du pays bataille tey paasan avec ces dossiers politico-judiciaires gis neen keroog euh, ñu interpellé ki nga xamné mo nek nekk Amadou Ba. Mhm. Euh, ñu xoo si suba ci ñu la femme de. Fatima Fatima kan Kane euh, moom tamit ñu interpellé ko par rapport ak fuite bi nga xam ne nemmeeku nañ ko si dossier médical bu Ousmane Sonko be procureur bi sax du loon wax ne dinañ ci def des poursuites judiciaires par rapport à cette affaire finalement ñu leen nga xamné ne dañ tégon loxo fum mu toll nii mun nañu wax né bàyyi na la ñu ñibbi seen kër mais sous contrôle judiciaire lan leen. teg ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp. waaw xam nga dama bëgg expliquer euh maa ngi nuyu Fatima Seynabou Kane sama xarit la. di mhm. soxna ci. Taïrou Sarr. ça mhm. xarit aussi. ndeysaan di di j'ai j'ai tout de suite bi ma déggee coow j'ai tout de suite pensé à à leur bébé. Mhm. boobu nga xam ni ñun <clears throat> ñu ngi woon ci tudd ba temps yële. ndeysaan donc j'ai tout de suite pensé à ça j'ai pensé à sa maman ndeysaan yaa booy. Mhm. mais àdduna noonu la léeg-léeg yàlla day teg natu moo mais ça passe comme ñu ngi ci contrôle judiciaire. tane na baax na waaye lenn la ma laa wax. a ngi maa dégg. document document boobu waru woon ah doy na wax de.

yalla yalla yàlla ñu bañ leena téwuti téewati ñu ne si jàmm. nekk ci jamm Amadou Ba nak defe naa tey heure bi waron na ko fekk Abuja. diggante mbiru Ousmane Sonko CEDEAO ak la ca dess mm-hmm. malheureusement soit donc du je vais pas commenter comme si amna ñu wax sax né dañu bañon mu dem Abuja motax lolu am wootee fa. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye benn affaire la ma sax na ci si moi, la sensation que j'ai eue, ou l'impression, c'est quoi mm. Il faut donner cette image que Ousmane Sonko est devenu faible, il est devenu fou, il est devenu anormal. Surtout. Ce n'est plus... Surtout le contenu, en fait. Oui, ce n'est plus... Maintenant, il délire, il vomit, il passe son temps... Euh, euh, bref. <clears throat> que mon que dégoût ou pas. Mais en tout cas, l'image que ça renvoie, c'est cela. Quand mm-hmm. moi, j'ai intérêt à ce que cela ainsi, il faut se poser la question. Khalil, mm. quand j'ai intérêt à ce qu'on dise Ousmane Sonko, il Légui, Moy, Lolo, question là. Mm-hmm. Ouais, oui, mais...

Ousmane Sonko bu demee Bikotan, ah là il va pouvoir recevoir des gens donc il va pouvoir communiquer. Hmm. est-ce que nous communication bi la bañ. je pose juste une question parce que en étant fi mu nekk Diabonobi, jamono bi hmm. il ne communique pas du wax ak kenn kenn du wax hmm. peut-être sa famille proche proche proche proche qui va le voir pour un temps réduit minime. xalaat la rek parce que xanaa nag léegi wuy ma. il nag léegi réew mi nag mën nañu wuy ma war nañu mën a toog nag ñu xalaat aussi <coughs> informer yu wax dañuy xalaat. Euh, parce que nak du ay dof nak euh. ben moment nak kenn du saga waye sen ñu xalat après ma ne ah. loolu de bu fekkee amna dina xaw doy war waye njaab bi tey hmm. dama lay wax affaire cette histoire fuitée soi-disant amna na ñoo xam nee nañu gars yi ñoo ko fuité am ñu ko wax ci bedd bi ah. la rue là. Hmm. les gens disent waye ñom ñoko ko di jaay teg légui nak bi nit ñi nandee loolu ñuy tegtal di japp ay nit ma ne ah mar de si parce que ce qui s'est passé en pleine émission sans limite. Hmm. fa la ñu communiquer bi fekk. ñu yónnee ko Bachir na man bi ko Bachir jotee sax di ko lire dama tiit parce que dama ne ba attends. Mm. xanaa kii def ñuy seetaan nii rek. Mm. ñu wax rek mu daal di yónnee affaire bi. Mm. j'ai pensé à ça. dama benn affaire njàpp yàlla na yàlla àtte dëgg ci réew mi APR Benno Bokk Yaakaar bi yore réewu senegal jamono bii di ko doxal 2012 ba fi ñu toll nii li yàq seen nguur moo leen topp te ba baax mooy teg. xel deal teg qualité. mais c'est aussi confidentiel yi nga depuis un certain moment passé ñu gis ko mu un peu partout mu comme l'administration sénégalaise comme ni nga dit, wax dañ infiltré aussi finalement suñu état ban soubassement la am. infiltré kan la ñuy infiltré. lu ma mën a wax. luy ci direction générale dem ci ministre directement. bu ña koy liir du ña koy gis du weesu ñett wala ñeenti nit wala juróom du dama ne du weesu nombre benn bi te xulil mm. ñëpp fi muy jaar xam na ni diw ak diw ak diw ak diw bu génnee rek gars yi ñu ñu toog kan moo ko génnee mm. yomb naa xam njàpp mm. lu génn lu ne li ci ëpp bokk xaw ma lépp de xulil li si ëpp wuy ma lu génn lu ne li si ëpp waxuma lépp de amaana waaye li si ëpp tayef la léeg-léeg

je connais pas comment, eh. la fi la ne qui a intérêt à ce qu'on ait cette image-là d'Ousmane Sonko qui délire, qui vomit, qui perd son truc, qui n'est plus crédible, au même moment où on nous disait qu'il voulait retourner à Sébikotan. Hmm. Fi, il ne peut pas communiquer. Là-bas, il peut communiquer. S'il doit recevoir des gens tous les mercredis, par exemple. Donc, donc yow mu du étonné bu ñu toogee rek génnee ne Ousmane Sonko kat moom fu mu ni nii euh, état bi mu toll <coughs> wér yaram may mayu ko mu ne Sénat nee na nañ ko jox ay fiche de parrainage parrainage am information jox leen kii ay fiche am nañ ko jox fiche rek réew mi neex. nit ñi ñu bloqué té mënu ñu am paré ñep am paré waaye bu boba ngay gis 3 millions de paré pour Ousmane Sonko. ndaysan té lolu lolu dafa 10 dé bu boba ñep du lolu lañu am ñep est ce que xam nga loolu boo sax bo ko fee affaire duñ jàll. <laughs> non san. ah réew mi kat fu fu waay tourné ñu ñu la euh, saa paré na woon dañuy xaar waa